dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy ci Pape bi tey directeur général bu Senelec bi nga xam ne ba mu wutoo Makhtar Cissé sa bopp kër googe ak léegi def na benn at journal bi dikk na ci ak liggéey bi nga xam ne Pape bi tey liggéey na ko fa jamono ji Senelec maanaam good fine courant bi coupétul te lépp ma ngi màjji-màjji journal bi dikk na ci ci lu jëm ci financement des projets de réseau de transport ak financement des projets d'énergie renouvelable journal bi tamit dikk na ci li nga xamante ni Senelec réalise corrigé na ko ci lu jëm ci mbirum ci 173 milliards ci premier semestre 2019 yéen a gi di Dakar Times xëy di ko dëggal ne Pape Demba bi tey ji lancé na benn boo xam ne jamono ji toll na ci 61 milliards te nag projet boobee maanaam daf koy dénk entreprise sénégalaise yi yéen a kaay gi de la xëy ci commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Sandaga tey jii la leen fa war a jëlee waaye nag soo moytuwulee caaf dina xëm vendredi de tous les ñu dénk wàllu woowu nee na leen mu neex leen ak mu naqari leen da ngeen fi génna yéenekaay gi di grand place xëy ci kër gi di o maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ dénk lu jëm ci wàllum séddale ndox mi o jamono ji jàngoroy coronavirus ji maanaam ma nga fay def lu dara jërul ndax seen direction générale bi am na ñu fa amee woppi coronavirus usine bu Kasora am na ñu fa amee coronavirus agence bu Rufisque ak agence bu Thiès foofee am na ay agence Sen'Eau yoo xam ne maanaam amee nañu woppi coronavirus yéenekaay gi di Rewmi Quotidien na dëgg gi kay mooy coronavirus bi jamono ji ma ngi jàbba jonge maanaam seen o am na juróomi agent yoo xam ne amee nañu woppi coronavirus libération yéen kaay ne woppi coronavirus yi jamono jii ni mi jàbba jonge ci réewum Sénégal ëpp na ndax lu toll si juróom ñaari junni ci ay nit ñu amee coronavirus ba mbir mi dooree ba léegi am na téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan jamono jii ñuy waxee ak yéen lu toll ci fanweer ak juróom benn ci ay cas grave yéen kaay gi de l'observateur xëy di ñu xamal laan ñu am na benn élève sem 2 bu ñu doon wax sa Jurbel ne dafa amee coronavirus élève boobee jamono ji ma ngi dox ay soxlaama bi ñu laajee nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum njàng meeg njàngale mi sa gox boobee la ñu xamle nee na ñu nag maanaam loolee du taax ñu daal di tëj li nga xam ne mooy école ba journal bi nee na élève boobee ñuy wax ne dafa amee coronavirus jamono ji daal ñi ñu dénk wàllum faj gi nee nañu cas simple la yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ci aide alimentaire bi nga xam ne 69 milliards la ak jafe-jafe yi nga xamante ne am na si rawatina ci lu jëm ci wàllum séddale marché yi nga xamante ni maanaam doon nañu ko si wax ñi nga xamante nag ñu bari ñu seen loxo ju seen ginnaaw mbir mi maanaam joxuñu leen dara dañu leen a fàtte mbir mi ci booba moo am lu ci lëndëma am na nag ak yeexaange gu mag goo xamante ni tamit nemmeeku nañ ko si yéen a kaay gii de la témoin ñu fekk fa mbaalo je caam mi nga xam ne maanaam moo jiite syndicat unique des travailleurs de la santé bi ñu ko laajee na ko njiitu mi di président Macky Sall wax na ne lu toll si junni ak juróomi téeméer cay agent dana ko recruter mbaalo je caam la mu tonto mooy loole waxi gouvernement la duñu si mën a tàccoogun duñu ko mën a jaajëfal dañuy xaar ba mu def ko ndax ay promesse rek la maanaam ay digg la ndax gouvernement bi waxoon nañ ñu fi lu toll ci mille agents at mu jot nañu ko recruter te ba léegi ni France dali xëddina kon bu ñu waxee mille cinq cent agents maanaam dañu siy tey yéen a kaay gii di réew mi ko di jen xëy ci Pape Alioune Fall mi nga xam ne moo rey Binta Camara tëj nañ ko li des ci ak dundama yéen a kaay gi du l'Observateur dikk na ci situation kaso yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la làmbool dikk na ci Seydina Fall Bouga Sali mi nga xam ne bi ñu ko génnee ñu bari ñoo ngi wax ne lu tax ñu génn ko Hissène Habré mi ñu génne yóbbu ko këram ak coow li ci am ak Karim Xurum mi ñu wax ne léegi ñu génn ko maanaam jafe yi ñu wax ne moom la am ci wàllu wérgi yaramam journal bi dikk na ci ak kasu yeek téléphone yi ñu leen di fekkee ak yamba jeek yeneen yoo xamante ne am na si rawatina mbirum jàppanteeg grève de la faim gi ñu nemee ko ci kasu bi loolee lépp yéenekaay gi dikk na ci journal bi di réew mi quotidien ñu fekk fa Guy Marius Sagna la mu xamle nee na ñi nga xam ne ñoo nekk si kaso yi jamono ji ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé lekk ñu lekk gu baax maanaam xar yi ak fas yi nga xam ne ñoom la ñuy yàtt sax si kër yi maanaam ñoo leen tane ak dund stade yéenekaay dikkal ñu xam ne ni ki démb corrigé na bu baax a baax Liverpool mi nga xam ne mooy champion bi yéene kaay gi di stade nee na Real Madrid ni ki démb def na beneen jéego ngir teg loxo ci li nga xam ne mooy championnat bu Espagne ginnaaw nag victoire bi nga xam ne am na ko rawee na ñeenti poñ ñi nga xam ne ñooy waa FC Barcelona journal bi di suñu làmb mu xëy di ñu xamal lan ñu Gaston Mbengue tëgg na combat Balla Gaye de Gris Bordeaux jamono ci ñoom ñaar kenn ku nekk encaissé na say millions